سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله فكن له أونا بلا استغزان فهذه طريقة الجيلاني عند ذوي الأخبار والبيان شيخ بو محمد كنت مواتي جمم جيم نكوي رجال fitam ni suku misal cheikh bu muhammad bëggam gi yalla taxna mo moo fi taal taalu diine ngir ñu roy ci mom ci borom njaasaan moo doon cheikhina cheikh abdul qadir jilani mo doon cheikh mo doon baye mit fi badni ummihi yalla ci mbaxam andil ñuko fi ngir rek ñu mën di roy ci mom cheikh bu muhammad ah asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokki àddina bi ku dégg kàddu yooyu rek sa xel du dem fu dul njaasaan ñu ngi toog ñii tey eh, toog ak ay kilifa yu tedd ki jiitu ci kilifa yi gannaaw ba nu ñaanalee xalifa bu tedd bi di Cheikh Al Becaye wuldu Cheikh Al mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ngi toog ak rakkam di sëriñ Mambu Sidi bale di ko ziyaar moom it di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi lool te ànd ak wér tok ak rakkam ju ñuy wax sëriñ Mouhamed Kunta gën a siiwee ci am mu di xalifa Cheikh bu di rakk ci xalifa bi toog ak Cheikh Papa Abdourahman mi nga xamante ni moo yor kàddu kër gi bu ko defee nag ñu bàyyi kilifa yi ñu doxal incha programme bi xamim walkitaabi almubin inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka fiha yufraqu kullu amrin hakim وصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بوكي جوليتي بوكي سنغال بوكي بيتم ريو نيوغي توك في حضره الشيخ ابي محمد كنتا تشكا بارو سنيو كليفه di way jur ci famille bi jëmale ko ci njaboot gi jëmale ko itam ci réew mi kàddu nuyoo boo xam ni doore nañ ko aaya alquran bi nga xam ni yàlla wax na ko muy junj nag weer wii ak bés bi ñu dëkkmal muy bés boo xam ni nisfu shaaban lañu ko tudde mu war a am incha allahu taala ci fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu sëriñ bi di ndokkeel senegal gépp di ndokkeel itam nawleem yi nga xam ni ñoom la bokk réew mi di ñaan yàlla ci barke weer wii li nga xam ni moo jaaxal njaboot gi di askanu senegal ñu toog ci toogaay boo xam ne toogaayu tiitaange la ak jaaxle yàlla mi nga xam ne lu mu dàq mu dàqu lu mu woyofal mu woyof yàlla na yàlla dàq tiitaange ji te woyofal jafe-jafe yi ba Sénégal ak Sénégalais yi dund ci ni nga xam ni noonu lañu ñu woon ba egsi fi muy wax joo xam ne wax ju gàtt lay doon incha allah waxtu wi daaw bi nga xamee ni itam yàlla nattoo nañu mbas mi bi ñu egsee dëgmal ci ziyaara général bi nga xam ni moom la ñu waroon a def ci fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu ren mu war a tombe ñaar fukki fan ak juróom ñett ci mois de mars ci situation bi nga xam ni moom la réew mi di dund ak àdduna bi contexte bi nga xam ni moo xew ak jalti jalti yi sëriñ bi waxoon ni dafay ñaan njaboot gi di njabootu boppam muy kunte yëpp ak njabootu taalibe yi ak njabootu réew mi ñi nga xam ni ñoo daan ñëw di fekk si bés boobu di bokk ci ñaan gi ne ren de incha allahu taala ni ñu ko fasiyene defé modi dañuy wacce ay kamilu alquran yamale ko itam ci njabot gi ba kep ko xamni itam bokku nga ci njabot gi mo xam njabotu deret nga mo xam njabotu talube nga muy njabotu maana fa nga nek la nga ci defon daw ci ay ñaan ak ci jang alquran nga tok fa def ko muy weer wu am solo ma am lu ma ci junjoon léegi soo ko dee wax ci arab chaabaan la tudd chaabaan nag juróomi araf la li mu ëmb bu ñu ko déggee tey jëfe ko waxuma la Sénégal waaye réew mi yëpp dana am jàmm Chine gi ci jëkk moo di ak kawe la nit nag mënta kawe ci wàllu yàlla àddina mën a rafet ëllëgam mën a rafet te ëmbul jàmm day ëmb jàmm ëmb yërmande ëmb njariñ wàcce boppam boole boppam ak ñépp ci lay mën a kawe muy benn ayn ga ca topp mooy uluw ak yëkkatiku lay doon nit mënta yëkkatiku ci ay nawleem te gënu leen jikko mënoo gën sa moroom jikko te ëpploo ko yërmande ëppoo ko jàmm da koy ëpp yërmande ëpp ko tolérance ëpp ko jàmm mën ko gën a kawe mën ko gën a baa ga ca topp mooy al birru mbaax mbaax nit su baaxee xolam day sell nit ku nit bu baaxee day yëkkati boppam ci lu ñaaw du ko jege du ko digle du ko fekke du ko def du dumbale ku koy def loolu mooy baagi alif ga ca topp mooy fa lañ koy firé ulfa mooy miineel miineel boole sa bopp ak nit ñi ubbi sa xol tàllal say loxo ak say cër li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom loolu bu amee jaxasoo day daal di am bennoo day daal di am nun nga ca topp nag mooy leer loolu lépp su dajee ci nit ki daje ci société bi leer moo leen di guider fu ñu taxaw jàmm lay doon te jàmm fu mu nekk leer nekk fa su ko defee kon sëriñ bi ci boppam mu ngi ñaaxaat njaboot gi ñu yaraat làmmiñ yi nañu yaraat làmmiñ yi coow li bari na wax ju ñaaw ji jóg na te loolu senegal daawul dunde nii senegal li mu daan dunde mooy dëkku teraanga la dëkku gor la dëkku nit ñu baax la dëkki pas-pas la kenn ku ci nekk da nga xool sa moroom respecté ko def ko comme ni nga def sa bopp doo ko wax lu ñaaw doo ko ko jëf waaye wax ji ñaaw na wax ji lëmbe na réew mi lëmbe àddina bi loolu sëriñ bi daal mu ngi ñaan nit ñi nañu yaraat seen làmmiñ te nag intere yi doomu aadama su ko bëggee jënde intérêt askan wi lëmm kooku war naa xoolaat boppam war naa xam ni koo ko tekketul dara ci réew mi réew mi réewu jàmm la ñu bëgg rekk nag li nga xam ni ci la ñu nekk coow li bari lool ñëpp teg ci bët ñëpp jaaxle fan la ñu jëm loolu sëriñ bi nee na daal mu ngi ñaan njaboot gi di ñaan askan wi di ñaan itam kilifa diine yi taxawaay bi rafet na waaye nañu yokk taxawaay bi ngir lépp njaboot la te njaboot gi yëpp ñoo leen njaboote bi ci des moo di rek programme bi nga xam ni moom la njaboot gi tëral muy comité gi bi nga xam ne ñoo daan saytu affaire mbiru ziyaara bi ñoom bu ñu xëyee incha allahu dinañu wàcce alquranul karim bu ñu demee ba nga xam ni alquran ji noppi na danañu door ay waxtaan fii ci jumaay ji waxtaan woo xam ni waxtaanu diine lay doon waxtaanu jàjji lay doon waxtaanu defaraatu lay doon ngir rekk rafetal suñu diine ak suñu dëkkiin ci biir réew mi su ñu demee nag ba ngoon ci guddi ga incha allahu taala danañu daje ngir jàng ñaan gi nga xam ni moom la ñuy ñaan ci diggu doomu weer wii guddi fukk ak juróom muy ñaanu nisfu shaabaan ci lañu koy ñaan ñu ngi ñaan yàlla itam nag waxtu woowu bu jotee eh, képp koo xam ne jullit nga te nga nekk ci réew mi nga bàyyi ci xel te xam ni ñaan googu bu la ci yàlla tombalee foo ko mën di dégg dawal nga dem fekke ko ndax ñi war a juddu ci lañ leen di yàlla di programmer ñi war a dee ci lañ leen di programmer ñi war a am ci at mi ci lañ leen di programmer waaye ñi war a ñàkkit ci lañ leen di programmer ñuy ñaan yàlla nag mu boole ñi ci ñi nga xam ne dañoo texe boole ñi ci ñi nga xam ni seen xel dafa dal boole ñi ci ñi nga xam ni seen lislaam seen diine seen gëm yàlla dafa rafet yal na ci yalla def jam, yal na ci yalla def jam, yal na ci yalla def jam, dañuy wax ni am na wax yo xamni ne ku ko yëkkati cim orma ci mag ñi nga xamni ñom lañ fi waye amatu lo orma itam ci mag ñi nga xamni ñoy dundu te nak amna lo xamni duñ ko nangul kenn duñu nangu mukk nit ki am intérêt nek ci ginnaaw yi nit di jouer ay intérêt bëgg a rew mi loolu duñ ko nangul kenn loolu dal sëriñ bi mu ngi ci ñaax ñabot gépp ñu ngi koy ñaanal itam mom yalla defal ko wër defal ay nawleem ay wér wér gu mat sëkk te yàlla bàyyi leen fi yàggal leen fi ci kanami njaboot gi ak ci kanamu diine ji loolu rek moo nekkoon kàddu yu gàtt yoo xam ni dañu koy wax pour yeewi nit ñi ndax ñu xam seen fu ñuy taxaw kenn ku ci nekk yaa ngi oote di laajte mbir mi naka lay demee kon ñu ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di ñaanal presse bi yàlla may leen ndam taxawaay bi rafet na matal ngeen li ngeen doon xanaa rek lenn rek dañ koy ñaaxi suñu bopp di ko ñaaxi presse bi mooy bépp wax joo xam ne bu ñu ko siiwalee mu indi ay ñax-ñax ak ay lëndëm lëndëmi xol indi ay naqar loolu yéen ñu ko gën a xam xam naa ne du ngeen ko def mukk su boobaa itam ñu bàyyi ci xel xam ni am na ñoo xam ne ñu ngi jàllale mbir ci presse bi namuñu ci dara lu dul fitna rek lañ ciy nam ñu nag kenn du leen may bunt wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu